xam lee mbokk yi tamit ni leen lii rek moo doon digal li nga xam ni moo jóge woon ci sëriñ bi moo doon ñu ubbi jàkk yi ginnaaw ba nga xamee ni bii autorité yi nga xam ni ñoo ñoo ñoo réew mi mu tàmbalee ci président de la république ba wat wadd ci ay ministre am ministre de l'intérieur ba ci gouverneur bi nga xam ni moom moo ni woon nañ tëj jàkk yi yi nekk ci région de Dakar ndax jàngoro ji nga xam ni sans borom daf ko def ci àddina bi muy loo xam ne lii jàpp nañu ñi nga xam ne ñooy saytu xam-xam nee nañu bu fekkee ni bii nit ñi ñoo ngi eh, dañ eh, dankaloo ak eh, di saafonte mën na ni jàngoro ji mën na wàllante te wàllante bi mën na gaaw loolu mooy sababu li nga xam ne bii ñu tëjoon jàkka yi ba ñu ko tëjee tamit sëriñ bi moo ni ma foofu nga ne ci Ndakaaru te muy jàkka ji nga xam ni moo gën a rëy ci Ndakaaru bu gouverneur joxe instruction ni nañ ko tëj na nga tëj ni niñ ko ñëpp tëje ñu tëj ko waaye ba nga xamee ni bii beneen ndigal jóge na ci borom ci kilifa gi nga xam ni moo jiite réew mi ne nañu ubbi jàkk yi ci la ñu jot ndigal tamit sëriñ bi ni nañu ubbi jàkk yi ndaxte sëriñ bi sax mosul a wax nañ tëj jàkka waaye nag comme dañuy tënku ci li nga xam ne lii mooy wàllu wàllu yoon te autorité yi nga xam ne ñooy autorité administrative autorité politique yi ñi nga xam ne ñooy saytu lépp loo xam ne mi ngi jëm ci réew mi bu ñu nee nañ ko tëj dafa am ci xam-xam buñ ko lal ba nga xamee dem nañu tamit ba ni nañ ko ubbi moo gis ngeen ni ñu ko ubbee ba pare la nga xam ne mooy matuwaay yi ñu waroon a jël yépp mooy geste barrière yi di sol ay masque di di di bañ a di bañ a di bañ a tàncaloo di bañ a jigalante bi ñu ko defee gis ngeen li masaalik rëy rëy rëy ak li bi rëy rëy rëy gis ngeen niñ ko jullee ak ni nga xamante bii noonu la julli gi awe yoon mhm. ak tamit dégg ngeen xutba bi nga xam ni mooy xutba suñu amaam Cheikh Mouhamadul Bachir loo ak li nga xam ni ñaax na ko nit ñi fàttali leen li nga xam ni moom lañu ñu war a def bu jamono tollee fii loolu nag e eh, ñëpp waroon nañoo xam ni fii ci Masalikul Jinaan nga xam ni baatub Sëriñ Tuubaa moo fiy dox ki fi nekkal sëriñ Touba li mu wax la ñuy def ñëpp waroon nañoo njort ni nii rek lay deme e, ay jullit nag sañ nañu bu fekkee ni bii jaamu nañu yàlla ci kër gi nga xam ne moom lañu moomale yàlla muy jàkka bu ñu paree ñu ñaan te dégg ngeen xutba bu am solo bi imaam xutba dégg ngeen ñaan gi mu ñaan loolu rek sans borom ci mbaaxam ak yërmandeem mën na cee sukkandiku ba lii fi dugg di jàngoro sans borom teggil ñu ko. ndaxte jullit ñaan rek la am tey jullit bu jàqee jullit yëpp bu ñu àndee bu ñu jàqee bu ñu ñaanee ki nga xam ne mooy tegale mu mu dindi ko ndaxte jàngoro ñoog jàngoro ñoo yem. Mm. yàlla moo ñu bind. Mm-hmm. dañ koy wax dugal mu dugg buñ ko nee génnal mu génn te fii mooy néegi yàlla yi nga xam ni fii la ñuy ñaanee ndaam sax fu nekk nit mën na fa wéet ñaan waaye bu fekk noonu boo wéetee ñaan mu wecc mu mu mu mu mu wecc jàkka wala mu wecc wecci jumaa kon du ñu def jàkka du ñu def juma. foo xam ne fii ñëpp dañuy jóge ñii seen i kër ñu jóge seen liggéeyukaay ñu dajaloo dugg ci néeg bi nga xam ni kenn moomu ko yàlla moo ko moom ku ci nekk toroxlu jàkkaarloo ki nga xam ni moo ñu bind ñu xam ne lompañ nañu ay doomu aadama lañu kenn la ñu yaakaar muy yàlla mi nga xam ni moo ñu bind ñu tàllal ko say ñuy loxo ñaan ko li imaam bi ñaan muy ay xasida yi nga xam ni sëriñ Touba moo ko defoon. te am na ci yu bari yoo xam ne ci ay mbas la ak yoo xam ne digganteem ak yàlla la ak yoo xam ne digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la nga xam ni moom loo dégg ñu ni mi ngi koy ñaan day fekk loo xam ne yàlla may na ko ko ba pare mu dog koo ñaan loola nag li muy jariñ mooy loo am am gàllaaj loo am gàllaaj gàllaaj fii mu ne boo takkoon garabu tul te boo gisee paaka daw doo xam lu la garabu tul buy jariñ Serigne Touba nag indi nay ñaan yoo xam ne lii mel nii moo ko tax a jóg bu ko defee ñu dajaloo ñëw fii ci néegub yàlla bi toroxlu talal suñuy loxo yàlla ñaan ko bu ko defee yàlla nañ rafet njort ni ci li ñu bëgg rek la ñu suñu borom di defal ñu boole ci tuub nag parce que ñaan bala ñoo ñaan dañoo war a tuub dañoo war a def tawasalu ci suñu borom wéetal ko kennal ko tuubal ko bu ko defee yàlla jégal ñu suñuy bakkaar tegal ñu natt yi.